sénégalaise la parce que tamit mos ñu xam lu ni mel eh, reporté ay élection présidentielle ca Senghor jaar ci ab Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba suñu yoon jom yàlla ji tey lay soog a am eh, fii ci fii ci Sénégal mu nekk benn tache noire boo xam ne si nii eh, dootul deñ ci histoire Sénégal la veille de la campagne électorale ñu reporté ay ay élection mais ci biir ay waxam kàddoom Macky Sall mi ngi wax ni ne dinañu waxtaan pour ñëpp bokk mm. ñëpp bokk googu ndax daf ciy boole eh, eh, ndax Karim Wade donc ko tax a jug wala def ciy boole aussi usman Sonko mi nga xamante ni eh, tey mi ngi ci loxol yoon te tamit ñu ngi doon wax ne ku war a bokk ci élection yi ndax moom mooy le chef de l'opposition ndax mën nañ ko ci boole ci bu ne ñëpp dañoo war a bokk. mais xam nga bu ne ñëpp dañoo war a bokk loolu dafa mënul nekk élection mënuñu koo def ñu bëgg a bokk ñëpp bokk bu dul loolu jarul am filtre. Mmh. nañ tijji buntu conseil constitutionnel ñëw inscrire leen ku inscrire après ñu dugal nga dem ñu def defal la bulletin nga dem. bokk mmh. loolu mënul nekk. comme ñoom li ñu koy faral di waxee élection fii ñëpp bokk mënta nekk. Mmh. il faut que mu am ay recalé il faut que mu am ñoo xam ne du ñu bokk maanaam du ñu matle li ñu tegle ne ku ñëw di nga bokk. mais su fekkente ne dañ koo dàq man damay gëm ba tey ñaari motif yi moo tax te moom laa gëm ba tey de. ñaari motif dama gëm ne li bokk daf leen ñaar yooyu la.

par force daf ci daf ciy bokk. léegi bu ñu ko jugee boo ko génnee boo boo demee ñu jugee que ne am na condamnation. léegi nag problème foofu lay judd. léegi nag loolu nag boo may tuut moo yëkkati moo fi yëkkati fitna. parce que dañ naan lii moo taxoon ñu bëggoon reporter élection yi may may temps la justice mu mu mu mu mu wax ci mbirum euh, Bassirou Diomaye fay condamné ko dootu mën a bokk ci élection. waaw mais xam nga fi ñu toll hypothèse rek la ñuy teg. dafa def tegal ñu ko noonu dem ba léegi kenn xamul suba lan mooy xam kenn xamul guddi ban décret lay jëlaat kenn xamul naa suba lan lay jëlaat kenn xamul kañ lay convoqué dialogue bi kenn xamul ñan ñoo koy wuyu ji kenn xamul ñan ñooy ban kenn xamul ban front mooy juddu ci opposition bi kenn xamul ban kan mooy organiser marche kenn xamul kan mooy xam kenn xamul ku d'accord kenn xamul ku c'est-à-dire mooy situation après bi ñu jëm situation bi ñu jëm fi ñu jëm après fi ñu jëm fan la fan la du incertitude totale la parce que non seulement joxuñu date waxuñu damay dàqi élection yi pour six Euh, te su boobaa dinaa xaar li mais fi ñu toll suñu joxul date bu ñu commencé dialogue bi euh, te ñëpp xam na ñoom lu ñu bëgg mu gaaw mu gaaw lu ñu bëgg mu yeex mu yeex. Mm-hmm. si lii ñu sukkandiku nii nga xamante ne mooy coowal Karim Wade bi nii au nom de quoi Karim Wade bu bokk ci élection élection warul am Sénégal. Mm-hmm. te lii su amee tey jii ça veut dire léegi daanaka réew mi bennoo ak wàllu ñoo ko moom. Mm-hmm. li ñu bëgg mooy am lu ñu bëggul du am. te lool daf ñu dañ ñu ko wan ñu gis ko. noo mënee comprendre dugal enquête parlementaire affaire bi def taf taf taf ñu dem plaigner lépp. daanaka ci benn semaine la jàll. Mm. ñu jóge fa ñu ne proposition de loi. ñu patam patam ñu dugal ko démb démb lañ ko dugal tey ñu woo député ñu ne validé nañ ko. validé mm. ko. ñu président daal di génn ñëw ne ñoom ñëpp déglu na leen recevoir na léegi nañ xool nu ñuy def ba ba dàq affaire yi parce que affaire dafa war a leer ñëpp bokk ak yu ñi ngi doog a wax tey seen discours élection wu ñëpp bokk. ñoom ñi ngi koy doog a wax tey bi leen bi daan wax naan bi leen nit daan wax naan élection yi bàyyi leen bu ngeen di organiser élection di seen ay nit ñoom tey jii parce que Karim Wade bokkul ñu toog nekk dañoo war def ay élection bokk. Mhm. parce que man je vois que ni dafay am mal euh, moom doomu Abdoulaye Wade diir bi mu fi nekk élection bu mu organisé bokkul man gëm naa ne loolu daf koy metti mhm. mais loolu warul tax tey jii ñu jël election bi ak fi nit ñu toll woon ak fi processus bi toll fi procédure bi toll. Mhm. processus autant pour moi. ñu fexe ba gàllankoor ko pour delloowaat ñu ginnaaw loo xam ne Sénégal mosu koo dund plonger réew mi ci benn incertitude totale. total parce que kenn mënu laa fu ñu toll lan mooy am suba. Hmm. on te dit six mois est-ce que dina dem ré réellement six mois dialogue bi ñaata appel ay am kenn xamul kenn xamul après. donc loolu mooy li nga xam ne moo gën a déplorable ci affaire mais dañuy dañuy dem ci benn dialogue boo xam ne si nii aussi comme bi ñu amoon euh, la fois passée mooy que ni euh, dem dialogue pour euh, régler des problèmes. Euh, euh, certainement dinañ rek le problème de de Karim Wade mais est-ce que euh, ñi nga xamante ni tamit ñoom dañuy wax ne duñu mës a toog ak Macky Sall duñu mës a dialoguer ak moom muy muy Pastef ak ñi nga xamante ni nekk moom mooy group boobu léegi nan na dialogue boobu est-ce dina dina am crédibilité tamit. non du am crédibilité xam nga lu tax. parce mooy mooy li daaloon dialogue bu njëkk ba mm. est du ko daal. non bi bi mooy gën a grave xam nga lu tax. Mm. parce que dafa jàkkaarloo benn camp boo xam ne mooy camp bi ñaari camp camp Amadou Ba ak camp Bassirou Diomaye Faye camp bale xam nañ ne dañoo jekku parce que camp bi ñu ngi rayante seen biir arbitre tas match bi ne dañuy footballaat loolu lay nduru léegi kooku boo ko tasee ngeen ñëw bëgg footballaat beneen camp bi est-ce que dina ñëw ak ni mu doon ñëwee lay ñëwaatee foofu lañ toll fi ñu toll nii xam nañ ne camp bale jekku nañ leen ku nekkaa ngi ñëw di adhéré Euh, mu commencé di susciter en benn engouement bi. Mhm. ñëpp d' accord presque ñu bëri ci opposition bi doon jóg pour dem jàppale ji leen. Mhm. ñu xam ne tey jii Bassirou Diomaye Faye Amadou bu ñu sëggoon bëri tey jii mënul jàll premier tour. mënta ne mhm. te bu demee deuxième tour du ci génn mhm. ñu ne noonu nañ tas làmb ji léegi ñu xool naka la ñuy def su ko defee ñu ñëwaat defaruwaat indiwaat équipe bu bees mën a jàkkaarloo ak ñoom mhm. léegi ñooñ tey ji nga tas ko bëgg woote dialogue ne leen ñëw leen ñu defaat ne après nangam ak nangam bennoo au même moment mu jéem a xool naka lay organiser waat peut-être indil ñu beneen candidat peut-être préparer wal beneen coalition parce que entre temps euh, seen biir tasaaroo na. mais est-ce que loolu est-ce que loolu c'est possible est-ce que c'est pas trop risqué tamit ñoom ñuy changer candidat. Euh, bu boobaa bu boobaa dañuy jox euh, dëgg ñi doon wax ni comme li ngay wax nii dañoom pare wu ñu woon. Euh, le fait que ñu ñu ñu ñu yi du woon motif ñu joxe mais c'était pour ñu préparer seen beneen candidat pour mu remplacer Amadou Ba. ñoom loolu euh, aussi flagrant flagrant deal lay nekk. waaw mais ñoom ñoom ñoom parewuñu ñoom ñoom xam nañ ne sax parewuñu. te ñoom ñoo parewul moo tax demuñu élection. Mhm. te dañoo def de sorte que depuis bañ ko dooree ba léegi. Mhm. élection bi dafa dafa mel ni daal dañoo demoon pour élection du am. parce que am na mhm. ñoo ne boole ma sànni sax dañ naan man tant que ma ba parce que xool ka ci wutum parrainage bi xool ko ci biir anguma euh, amul woon euh, dara amul il a fallu benn jour wala ñaar jour mu xaw a yëngatu tuuti ñu jóge ci ñu dema ci conseil constitutionnel coow yi judduwaat moo tax am na ñu bëri gëmuñu woon ne dañuy dem élection et effectivement am na raison si ñi nga xamante ne gëmoon nañ dañuy dem élection mais li gën a metti ci mbir mi mooy bu fekkonte ne teg na suñu loxo lu consistant si maanaam lu dëgër man loolu moom metti ko su fekkonte ne dara def fi xewul Moussa dara xew fi dara xewul ci réew dara xew fi loo xamante ne war nañoo bañ a dem élection élection moom muy fii muy Sénégal mhm. avant élection il faut dina am coow après mhm. élection dina am coow ndax ndax 2019 ba ñu génnee ñu contesté eh, ñoom Ousmane Sonko ñoom mm-hmm. am ñoom eh, Idrissa Seck génn contesté dafa tax ñu ne dañuy defaat élection yi. Mm-hmm. il faut mu am mënul ñàkk ñëpp mënuñoo kontaan ci élection ñëpp mënuñu mm-hmm. kontaan avant ak après. moo nag ku bu fekkee dafa am ku ku ku contesté rek wala ñaawlu rek nga ne dañuy dañuy affaire yi loolu bu fekkante loolu duñu mës a def élection. en tout cas lii eh, lii nga wax ni moom moo ci nekk oyof na trop ah, pour ñu reporter ci ab élection.